ay ay député ay maire ay conseil municipal par département ñoo xam ne nii dañ am woon ja am jaar-jaar xam seen réew bi ñu waxtaan ba pare loolu nag indi ko présenté ko ci plénière bi mooy fi ñëpp dajee ñëpp d'accord baraawoo loolu ne nangu nañ ñu waxtaanee xalaat bu mel noonu ñu def suñu programme premier commission préparé programme indi ko ñëpp ñu waxtaanee ko waaye léegi bu bu waxtaan bi soree naa lay wax lépp liñ ci liñ ci nam xam nga man ku ma xam-xam ne ni ay làqu-làq la wax lu ma gëmoo la man xupp yëngalu ma wax lu ma gëm la ma amul ci kaw suuf ci réew mi ku fi yeew ku ma jaaral wax loo xam ne gëwuma ko bu nekkoon lañuy ñuy def man Aliou Sow d'accord ma ci wala bokk ci ñi ko gëm jàpp dañ koo war a mébét maa koy njëkk a dingat wala ma maanu ca waaye li ñuy def moom dañ koo gëm ñu ñëpp gëmandoo ko taxawandoo moo tax defe naa ñàkk xam ak ñàkk ormal suñ kuréel mu ngi tàmbali taxawoon naan dangay ngay joxoñ baaram présidente ba di ko dingal bu dul mais kilifa la jigéen la ndey la yaay la bàjjen la nit da ànd ak dal ak yar ak teggin bu nit waxee dara d'accord ci nga wax la nga xalaat mais naan démocratie naan li ñu wax du fi am wala ay diw wala ay jaay doole mais loolu la ñu waxee waxal yow tontu mais mais foo déggee xarab ak xaste ak xànc ak wax ju ñaaw borom amul beneen gàll la amul beneen ndëgër laay lu dul wax ju ñaaw jooja ñun nag duñ tontu ci loolu duñ ci fas yéen dellu ci ginnaaw dañ def suñu war lañu war a def yoon joxuñu ko ku wàcc yoon nag yaa ngi yoon na ci yéen a koy jàmmal. d' accord sànq sa sa sa wax yaa wax ni méngale doxalin bi ak bëgg-bëggu askan wi. Mhm. alors tey ci Dakar euh, ni ñu koy doxalee dafa safaanoog bëgg-bëgg askan wi wala nu mu fa demee. mu ne bëgg-bëgg askan wi mu ne wax intérêt askan wi mu ne wax méngale ak jamono mu ne méngale ak koom-koomu tey du taxawaay fu mu toll. Mhm. xam nga tey li am buñ ne bante ñuy ñëpp ñooy nekk Ndakaaru Ndakaaru kenn moomu ko samay doom fi lañ juddoo sama kër fi laa ko am sama alal am na ñu bëri ndakaaru nekk ndakaaru dëkk ñëpp la mooy capitalu Sénégal bala muy nekk capitalu dafa nekk capitalu Dakar région bi mais nekk capitalu Sénégal ñëpp a bokk ñëpp nag cosaanoog ñëpp ñoo bokk ndakaaru loolu amee pare tey jii ndakaaru li may leeral ñëpp xam ko mooy bala acte trois di am dafa amoon fukki commune ak juróom-ñeent ñu naan commune d' arrondissement mooy nga nekk ci am commune u ndakaaru mairie ndakaaru mais commune yooyu dañ ne ko ngeen wàllu commune parce que am na loo xam ne moomuñ ko ci sañ-sañ mairie Ndakaaru ko moomoon mooy da ngay nekk commune ba pare ka ko jiite nekk njaati nga nekk surga même boo doon jox sa fond dotation doo leen ko jox mairie Ndakaaru ngay jox mu com mu compal leen wala mu tibbal leen jox leen ak yeneen yeneen am yoo xam ne sañu ko def ñee wàllu sax liggéey kat liggéey mooy personnel mairie Ndakaaru moo leen ko doon jox mais président Macky Sall xalaat acte trois ñoo ne léegi nañ leen jox seen moomeel bopp ñu am mooy commune plein exercice mooy du ñu jógee commune d'arrondissement ba nekk fukki commune ak juróom tamit plein exercice la ne boo demee tey Yoff wala Médina wala Grand Yoff wala feneen mairie ba dafa am suufam am frontière mi xam ne ñoom ñoo ko bon mm-hmm. ka jiite élif loola am lu ko sas ci yoon ko ko may maire Ndakaaru du kilifaam mënu ko wax xëy mënu ko wax gontal mënu koo sas munu ko bañ a sas donc ne du kilifaam amul relation yooyu mm-hmm. ñooñu waa koñ boobu bu ñu amee jafe-jafe waa commune boobu duñ dem di fëggi buntu waa Ndakaaru maire Ndakaaru seen miir la ñuy fëgg buntu wax ko ko seen jafe-jafe ñu doon xaar yéen ñu doon xaar ci mairie yu gën a bëri xëy na tey seet seetalu Dakar ba mu seet wecc mooy gestion des ménagères koy def état moo koy def mairie Dakar ko defar ko waaru wàllu éclairage public mairie Dakar defar ko nguur gi moo koy fay di ko poto yéen yi gën a bëri yëpp gox goxaan yi ñu ngi koy defar seen bopp ndaxte loolu tey bu mairie Dakar de kamus ñu tëj buntu ya doxul te mairie yéen yi dox ndax ndakaaru bu loolu doxee état bay dox mën naa wéy di dund am déet mhm. sans Dakar sans mairie wax muy ville de am déet bi lu amee nag juróomi at ñu génn bu ñu nëbbante soxla si xuloo xiiroo ŋaayoo jéeñante tamante dëmm tibbante tànk de tribunal avocat lu lañ fi dégg di wax ana waxu koom-koom ana jëf mën nga maa joxoñal lu taxaw lu ne gàññ lu ne weng ak coobare ak sàqu Dakar nu mu toll lu ne lii fukki milliards la wala ñaar fukki loo xam ne boo gisee yéemu ne li mairie bee ko defar mhm. loo fi gis chantier mais état bee ko def. wala loo gis ci gox goxaan yi. mais communes yi ñoom ñoo ko def. dama ne est loolu nag bu jotee soxna si dafa am solo ñu toog waxtaan ndax la ñuy jël Dakar di ko dénk noonu di ko jox war waruñu ko jël tasaare ko ci yeneen communes yi juróom-ñeent yokk seen gafaka yokk seen njël yokk seen um sàq yokk seen wu sas. Mhm. la nekk ca kaw nag te fii mooy capital bi kaaraange réew mi xol ba ak canu mbaar ma sampoo file ñu xool nag kuréel goo xam ne du samp du fal meeru Ndakaaru kuréel gu bees lay nekk mun na tudd district. Mhm. mu nekk conseil de communauté. moo nekk conseil urbain moo nekk communauté nangam tur yu bëri mooy am yeneen réew yi naa ci ñëwaat ci loolu loolu ñuy jël nag boobaa bu la neexee mun nga jël kenn samp ko jox ko ko sas ko ab liggéey bu bokkul li ñu sas ko goxaan yi mhm. ña koy wër mën a nekk nag ab conseil de communauté wala conseil de district boo xam ne bu la neexee ne fukki meer juróom-ñeent dañ ciy bokk kenn dugg seen gox def fa te diisoo ak ñoom parce que ñoom dañ cee bokk mhm. bu la kilifa cosaan ak aada yi ay grand sëriñ yeeg yeneen gaañ yeneen kilifa yooyu dañ ciy bokk boo neexee ne ñi nga xam ne ñooy ñiy lënkaloog Sénégal ci wàllu koom-koom ak alal dañ ciy bokk parce que dañu dugal seen alal ci li ñuy def pour pour ñoŋal Ndakaaru boo neexee nga yokkaat ci ne li nga xam ne nii mooy patronat bi mooy borom bark yi am seen alal yor usines yi di joxe xëy jox ay milliards ci ndakaaru gi te lépp samp ndakaaru dañ ciy bokk weesoo ak xalaat ak loolu bu ñu bëggee def ay projet yu mag a mag a mag boo ne sax banque yi mhm. mun nañ cee bokk ngir mun a jële alal jox ko miir mhm. mairie district boobu wala leen xalaat yooyu la ñu sumb di ko def di xalaat di xool ni ñu koy yokkee parce que benn xel du xel du doy lu kenn ma ñaara ko mu dàq alors monsieur le ministre bu ñu la déggee boobu ba presque li nga fi joxe ay exemple bëri na mhm. li nga fi leeral donc bu ñu la déggee revoir mhm. statut capital régional yi bokk na ci li tax ngeen taxawal booba réforme gis nañu parti bi nga xamante ne moo nekk au pouvoir ñi ci mhm. bokk ñu bari ànd ñu ci désapprobation boobu est-ce que du tax ngeen dellu ginnaaw non bul wax parti ba ca bokk ay ñaar ñett ñeent ñoo wax waxuñu ci turu parti seen turu bopp lañu wax bi nag ñooñu wax seen turu bopp buy xam-xam ña nekk au conseil ko buy jaar-jaar ëppale ñu ko buy def ci réew mi ak fonk réew mi ëppale wuñ ñu ko mhm. au nom de quoi seen wax ñoom war ak mën a muur waxu ak ndogalu wala yéene téeméeri kilifa ak juróom fukk yu tasaaroo jógee ci Sénégal yëpp jógee département Sénégal yëpp loolu démocratie la ku ne waxal loolu kay dañ ko kañee bàkkee ko sax parti bi ci nguur gi mooy wone ne ku nekk mën nga wax li nga gëm waaye nag dafa am loo ko bu nit taxawee bu bu ñenn ñi ne non waxtaane wuñ ko mais ñaata mbir am ci réew mi te waxtaane wuñ ko ca parti au pouvoir ba bi ñuy soppi premier bi ñuy dindi poste premier dañ ko waxtaane ñoom bi ñuy dindi motion de censure dañ ko dañ ko waxtaane xam nga nit nit am sa gëm am na sa gëm-gëm mais da nga am cër ak respect ak mën a ormal ñeneen ñi nga xam ne ni buy xam-xam ak jaar-jaar ak mën mën ñoo ko pare du leen ko bañal non bañuñu non bañuñu bañuñu ñu joxe seen xalaat mais nanguwuñu li ñu tubaab di wax institution nit bokk ci institution di jéem a dinga beneen institution tey député yi ku ne mun am sa xalaat mais man Aliou Sow en tant que membre du haut conseil dinaa tere sama bopp tere ku mën a déggal duut baaram assemblée nationale parce que respect entre institution dafa war a am institution bu nekk da nga war a ormal parce que aba état dafa mu tëddee ndéem si yàlla tanoo jee wax ne pour aimer l' il faut connaître mm-hmm. l' pour servir l'État pour pour pour servir l'État il faut aimer l'État. est-ce que du maire bi li mu bokkul parti au pouvoir bokkul ci coalition Benno Bokk Yaakaar même si nee nañu sax maire de Dakar AFP la bokk mais gis nañu ne lu jëm ci ay yëngu-yëngoom ci politique moom demeetul noonu moom moo tax ngeen taxawal réforme bi. loolu moo ñi nga xam ne nii loo yëkkati ñu tudd nit digal luwaa ak coppite amul tur amul sant ñëpp la jogal kii nekk tey maire kii nekk ëllëg maire kii dee tey kii dund suba yàlla rek ko xam kuy soppi ci ay nit. ñàkk xam-xam ñàkk vision moo koy indi. Mhm. xam nga bi ñuy soppi di acte trois di dindi ay conseil régional soppi conseil départemental dindi communauté def ko ay commune dindi commune d'arrondissement def commune plein exercice gisuñu woon ay nit ay gox lañ gis Sénégal lañ gis ëllëgu Sénégal lañ gis. man loolu intéressé wu ma gis nga man man xëccu woon palug Ndakaaru keneen xëccul palug Ndakaaru foofu ñun dañoo dégg sànq nga ne Dakar gisaguñ lu ñu fi teg baaraam ne lii maire bokk fi def li ñuy wax mooy ay tribunal yóbboonteeg porte plainte mooy li fi gën a bari est-ce maanaam ki nekk au pouvoir ak ki nga xam ne moo nekk maire bu Dakar kenn ku ci nekk sa parti maanaam fi nga bokk nga surpassé ko jiite li ne mooy bëgg-bëgg askan absolument soxna Fatou li nga bu ñu demee ba fàtte suñu bopp xam ne askan bi moo ñu dénk ñu wàccoog suñu aqulatalla ak suñu wareef ku nekk fàtte sa intérêt bopp ak say calcul jiital li nga xam ne mooy li askan bi moom yàlla xame boobaa mhm. tibbante tànk jiiñeen tamante bu ne fa jógee ko mais mhm. comme que la munu fi jógee nag wala jógee ko ba tey ji ni xam nga jafe-jafe bu mat bu ne di nga ba loxo bu feebaree ba commencé yàqu mënoo ci dara dagg ciy mujj mhm. boo defee sa mbaar ba mu dem ba commencé funox na ko mu nar a màbb na nga ko busloo sempi sànni fay teg taax boo ko deful fu nawet jotaatee rek mu fundaxaat fanaat nga deferaat mi ñabal ñam ñabal yu ëpp nag saafara benn yoon jàngoro ba jógee fa bi dina métti diisoo xiiroo dina am mais mu jeex fee li jaaxal nit ñi dangay nga tudd léegi Abidjan tudd euh, Yamoussoukro mhm. ay vidéo xamante ne mhm. li nga fa tudd mooy xëy na li ñuy doxalee ak la nga mhm. xam ne mooy statut ba fa am mais am na ay dëkk de grande démocratie lu ci mel ne France nga xam ne dëkk ba capitale bi socialiste moom moo ko yor la moo tax Sénégal waruñu toll foo xamante ne euh, parti au pouvoir ki koy yor ak beneen parti bi lu ci mel ne yeneen dëkk yi nga xam ne France presque toutes les grandes capitales parti socialiste moom mooy jël que Sénégal bëri na lu muy bàkkoo ak lu laaj la waaw Nigéria am na démocratie RDC am na démocratie moo tax président ba perte pouvoir opposant jël bu nguur ga. Mm-hmm. loolu tax nattukaayu démocratie mënut a weesu loolu. Mm-hmm. Côte d'Ivoire gi am na démocratie te buy koom-koom ak naataange UEMOA bi ñu bokk juróom-ñetti réew yi koom-koom bu ci ëpp doole raw fa ñëpp mooy Côte d'Ivoire. Mm-hmm. Abidjan taax ba gën a ñoŋ tey jii suñu sous région bii nii doo toll ab bi ñu am ni ñun Abidjan am na ko xëy na fanweer ci ginnaaw buy tabax yu rafet amul meeru Yamoussoukro Yamoussoukro taax boobu na mel amul ndakaaru Sénégal gi taax bu mel ni Yamoussoukro budul capitalu ndakaaru gi amul mais xam nga def ñoom ma leeral la ko hmm. dañu am seen commune comme ni ndakaaru amee commune ak seen maire mais lañ ne mooy jiite nag mbir lu yoo toppatoo affaire capitale bi dañ ko soppi district d' am benn gouverneur district bu am juróomi adjoint mooy juróomi vice gouverneur district am benn secrétaire district. gouverneur bi dañ ko nommé. ma waa ñëw dañ ko nommé. waaw ba pare dañ ko nommé ba pare. wala exemple yooyu nga jëm si mhm. léegi liggéey ci loolu mais yàqalul dara liggéeyu maire yi nga xam ne mooy maire pla pla plateau ba yeneen maire yi nga dem par exemple fu mel ni tey Yaoundé Yamoussoukro moo fa am. Mhm. nga mel ni fu mel ni Yaoundé ak Douala xam nga ñoom lu ñu créé dañ créé lu ñu naan dañ créé seen i commune d' arrondissement ñoom la ñu am sax ñoom mais la muur commune d' arrondissement nekkatul maire ville ak maire dañ ko créé lu ñu naan conseil de communauté gouvernement bi am lu ñu naan délégué du gouvernement. foofu tam dañ ko nommé ñi nga fi lim ñëpp dañ leen. maa ngi ñëw bi ñu ko nommé pare léegi de moom la ñu ko pare def conseil de communauté maire yi na nga xam ne commune d'arrondissement yi bokk ci conseil de communauté bi yeneen kilifa yu mag. ñu ooy ay grand conseiller bokk ca ñu jël ko def par ñaari saam ñaari bànqaas li naan commission des infrastructures mooy tabax ñoŋal euh, sa dëkk def fa yoo xam ne ku ñëw yéemu ak commission des finances wàllu koom-koom wàllu koppar li ñuy jëlee pour tabax loola ñoo di liggéey seen sas bokk na suñu feneen Ndakaaru boo defoon tey lu Ndakaaru boo neexee def loolu ñu la wax ni mu nga boole. ñuy xalaat loolu maanaam bu ñu ko tënkee ñu neexee Ndakaaru mooy xëy na li ñu la doon laaj bëggoo bëggoo. ci non li ma la wax dafa mooy nommer un maire. nommer maire amu fi madame. ah oui c'est que maire dafa dul amati. ju fukki kii maire ak juróom-ñeent mun nañ fee ne léegi ca kooku bu la neexee nga soppi ko ab district bu neexee nga soppi ko ab conseil de communauté am kuréel guy ñànk loolu. nga xam ne ñooñu éliminé maire bi ñu nommé ki koy remplacé. li ma wax ni amul dara luñ ci jàppagum dama ay xalaat rek pour wane ay yoon ay.